képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci chaîne bii rek di Mbacke Kadior TV luñ ci dana ko am en exclusivité di leen xamal ne nan baaxoo def ci weere def nañ ko séentu nañ ko waaye yàlla dogal na dañoo defar déclaration nag ni feeñul ci kaw bañ ko séentoo ba sonegee di jëm bañ jokkoo ñu jokkoo na kër sëñ bi bañ wax ne léegi génn kon kon suba mooy mottali euh, weeru maamu koor bi waaye nag léegi jotaan nañ xibaar yu baree bari yu jóge ci gox yu baree bari yi wane ne gis nañ ko ñoo xam ne ay kilifa lañ ñoo xam ne ñoom gisal nañ ko seen bopp sax bañ defee noonu it dañ daal di jàkk jokkoowaat ak kër sëñ Muntaxa ba kon ñu xam le ne ak coppiku am na xam ne suba kon mooy benn fanu rajab ñu xam ko suba ci gaaw bi mooy benn fanu rajab